wajaal kalaami rachidan wa murshida wa fikrati nawwir wa xalbi arshida alhamdulillahi wa salla bada ala allazi bihi lana huda bada seydina muhammadin wal ali wa sahbihi zawin nawalil wali sëriñ muntaxal bachir yal na fi yàgg lool te wér waaye sëriñ am di moodu menda yal na fi yàgg lool te waaye sëriñ moo taala eh, yal na fi yàgg lool te di sëriñ eh, xalifa sëriñ moodu ablaay fall ndar eh, tey nag jataay bi ku ko gis xam ne miin na écran bi waaye tamit miin nañu jataay yi su ne suñu amee ay moment for ay moment yoo xamee ne important la ñu gis euh, Serigne Mor Ngiraan di leer ci euh, Serigne euh, mbay Mbaye Ngiraan nga xam ne ku ne xam na ko ci selli waxinam waaye ci xam-xam ba muy waxee tamit tey nag ñu ñëw ci màggalu ko maam Seynabou Ndiaye màggalu maam Seynabou Ndiaye nag suñ koy waxee am na tout tànk amaana yoo xamee ne xamuñu kan mooy maam Seynabou Ndiaye te maam na Seynabou Ndiaye nag da di royukaay ci bépp soxna maam Jaara yi tamit di ci bépp soxna kon Serigne moor ginnaaw bi nga xamee na uh, nuyu nañ nag tu uh, téléspectateur Touba Allemagne TV yëpp di jaajëfal ni ñuy topp di ñu message di ñu wax ne ñu ngi uh, topp suñuy jataay kon nag Serigne Mor dañ lay wax nga nuyoog mbokki téléspectateur Touba Allemagne TV di chaîne boobu nga xamee ne lépp luy dox ci mouridisme rek ci lay yëngoo Serigne Mor ñu ngi lay ziar. bismillahi rahmaani alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil wa ala alihi wa wa man ihtada bi hadiyim ila yawmi ddin waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu soxna Maymunatu bintul Xadim noo ngi lay delloo ab nuyoo ak siyaar eh, ci barabu tedd bii nga xam ne tey fi la nekk muy Ndar Fall di Touba Ndar di barab boo xam ne jàmbaari lislaam di sëriñ moo Modou Abdoulahi Fall moom sëñ Ablaye Ndar moom Cheikh Ibrahima Fall Babul tey ñu nekk ci këram nekk ci ëttam di fi daje tey ci bis bu rëy bu màgg muy bis boo xam ne dañu ciy fàttaliku as-sayyidal karima soxna Seyna bu Njaay mi nga xam ne mooy way juru maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine kon noo ngi ci ndokkeel mboolem jullit ñëpp di ci ndokkeel taalibe Serigne Touba yëpp di ci ndokkeel njabootu Cheikh Ibrahima Fall gépp di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñoo ngi nuy seetaan ñëpp nekk ak ñun bokk ñun jataay bi noo ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax di siyaare bu baax itam boroom at bi nga xam ne tey moo fi nekkal waajuram di xalifaam di sëriñ Cheikh Bintu Fall xalifatu sëriñ Modou Abdoulaye Fall Ndar noo koy nuyu di ko siyaara bu baax di sàkku ci moom nuyoo boobu mu jàllale nu ko ci waajuram sëñ moor Talla mi nga xam ne moo nekk xalifab sëñ Abdoulaye Fall Ndar waaye nuyoo boobu it jàll ci kilifa gu màgg di sëriñ Amdi Modou Mbedd mi nga xam ne moo nekk jataayub Cheikh Ibrahima Fall Babou Mouridine ñu weele nuyoo boobu ñu boole nuyoo yooyu nag ak siyaar yeeg ñaan yi nag di ko yëkkati jëme ko ci sayqu suyuuqi te mooy sëriñub sëriñ si di Cheikh Mouhamadul Mountakha xalifatu général de murit di ñaan suñu borom yàggal ko te wéral ko di ko ñaanal mbooleem njabootuk sëriñ Touba gi ak njabootuk Cheikh Ibra gépp di nuyu nag kilifa yi nga xam ne fekk nañu leen ci jataay bi ñu bokk ak ñoom saal bi ñu nekk fi sëriñ Omar sëriñ Omar Fall Darul Kafour di sëtub sëriñ Saliou Fall bis bi di bisub maamam ndax maam seeni bu Njaay lañ ciy fàttaliku mu nekk ak noonu ci saal bi noo ngi koy nuyu di ko siyaar bu baax maa ngi siyaare sëriñ Cheikhouna Cissé mi nga xam ne mooy doomi sëriñ Bachirou Cissé mi nga xam ne moo njëkk di xalifab sëñ Mor Mbaye Cissé eh, di sunu buntu ci sëriñ bi di sunu kilifa moom it noo koy nuyu bu baax mi ngi nekk ci jataay bi di ko siyaar di nuyu sëriñ Moussa Mbacke moom sëriñ Mouhamadou Lanfis moom itam mi ngi ci jataay bi noo ngi koy nuyu di ko siyaare bu baax di siyaare kilifa barab bi nga xam ne fila kàddu gi di jógee te mooy Sidio groupe. te mooy sëriñ di Gissé Diop di Baye Fall boo xam ne liggéeyal Cheikh Ibra ak liggéeyal njaareem yitteel na ko lool te liggéeyal njaareem mooy liggéeyal Sëñ waa mooy liggéeyal Cheikh Ibra noo ngi koy nuyu di ko siyaar bu baax di nuyu ñi fi nekk ñëpp nag kon euh, kàddu gi dama la koy delloowaat soxna may mun a ñu mën a dugg nag ci waxtaan wi incha allahu taala waaw kon nag euh, suñ ne màggal nag ñu ne kan la ñuy màggal ñu ne maam Seynabou Ndiaye maam Seynabou Ndiaye nag soxla woon na tout tànk yi nga xamee ne mel na ni man ak amaana ñi nga xamee ne ñooy euh, xam ne moom mooy waajur ci maam Cheikh Ibrahima Fall mais xamuñu euh, maam Seynabou Ndiaye fan la bokk maam Seynabou Ndiaye fan la yaroo maam Seynabou Ndiaye fan la juddoo kon damay boole tënk rek nga wax ma maam Seynabou Ndiaye fu mu juddoo fu mu yaroo waaye tamit nga misaalal ma waajur yi nag ndax kenn mënta xam le nit te jaaroo ca mbokk ya jërëjëf soxna Maymuna wax nga dëgg yaaram dañoo bañ lool di wax ci nit te xamle woo ko ba noppi moo tax nasab doon lu ama ama am solo yont bi saa salaam itam wax ne tas taallamu ansaabakum maa tasiluuna bi arxamakum xam lu leen seeni askan ndax ci ngeen di mën a jaar ba defar seenu mbokk kon soxna si bu ñu delloo ci aslu bi ci askan yi damay jël tey soxna Sanaba Gaye mi nga xam ne ak soxna Aram Gaye euh, nga xam ne seen waajur mi ngi tudd euh, Samba Wari ngoom soxna Sanaba Gaye moo jur euh, moo jur aale Sanaba ak ku ñuy wax mbërgu Sanaba ak njaga Sanaba ak bintu Sanaba ñooñu dama leen a jukki rek ci njaboot gi Ali Sanaba moomu moo jur yàlla loo mu jur aminta yàlla mu jur faat ma mu jur xari maam mu jur aminata loo xari maam mu jur cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne mooy awalu xalifatu cheikhul xadim ak cheikh Mouhamadul Amin boroom guy mind bu ko defee ñu jëlaat beneen doom muy Njaga Sanaba Njaga Sanaba moomu moo jur Maxtaar Njaga mu jur ma sàmba Soxna Jaañ mu jur Madoun Awa Jum mu jur sëñ Daam Abdourahman Lo Cheikhul sëriñ boobu nga xam ne moo jàngal njabootuk sëriñ Touba gi nga xam ne gis nañu ay lettre yoo xam ne sëriñ bi mi ngi koy wooyee muridu saadiq naan ko ayyuhal muridu saadiq yow murid bu dëggal bi nga xam ne alfaani fiya ka fanaa'i fillaahi ne ko yow Abdourahman Lo da ngaa jeex ci man ni ma jeexee ci yàlla ak ni ma jeexee ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam buñ jëlaatee doomam ji ñuy wax Njaay Sanaba moo jur aramloo mu jur faat ma Diop mu jur maam Faa Waddu Wele mu jur Seydil Xaaji Malick bu ko defee bu ñu jëlee ki ñuy wax Binta Sanaba moo jur Kura Touré mu jur faat ma Ñang mu jur Kura Njaay mu jur Maram Xacc mu jur Lawbe ture mu jur maam Absa Lawbe mu jur Soxna Faati Isa jóob mii way juru borom daarul mooti a Cheikh Ibrahima Fati mi nga xam ne juróom ñett fukki at yu manki ñeenti weer la dund ñaari yoon la ci mës a tiim ñu jël doomam ji ñu wax Aram Gay Aram Gay moomu moo jur Kumba Jaañ mu jur maam Njaay soxna Balla mu jur maam soxna Seyna bu Njaay mi jur Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine ak maam Saliou Fall ak soxna Astou Diop soxna Astou Diop moomu baayam mi ngi dëkk njóobeenuk beleel ga nekk ca wetu kokki moom la ñu joxoon xaalim ja mbokkum Cheikh Ibrahima Fall ma murit saadix ba sëñ Daaru Njaay waaye sëñ Daaru bokkaat na ak soxna sëñ bu Njaay kon su euh, euh, Baye Mbay day faral di wax ne soxna sëñ bu Njaay mooy senegal gis nga ñi ma indi ñëpp sëriñ Njaay Fatma moomu Euh, sëriñ Ndiaye ma Diarra moo jur sëriñ maam moor Diarra Ndiaye mi jur sëñ Daaru Asan Ndiaye kon foofa dañoo bokk waat ci njaree bokkaat menn maam euh, xam nga soxna sëñ soxna Aminta Kan euh, mooy waajuram soxna Aminata Kan soxna Aminata Kan moomu mbokkum soxna Anta Sëli Kan la soxna Anta Sëli Kan mi waajuru Maam Moor Anta Sëli waaye soxna Aminta Kan moom nga xam ne mooy woy juru sëñ dara Asan soo ko toppee dangay fekk mu bokk ak soxna Fatimatu saar mi nga xam ne mooy woy juru Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ kon sunu bëggee tënk ci wetu njare gi loolu doy na ci andi maam Seyna bu Njaay bu dee wetu paaleen gi damay jël dameel ma deseet faal moo jur biraan jabe ak ak yoro njabe xam nga biraan moom alxuraan la wuti woon naka jekk ba mu jógee dafa dem wuti alxuraan kon yoro moom moo jógoon uti nguur biraan moomu itam bi mu demee ba yàlla dogal mu am alxuraan am xam-xam moo sancoon fi ñuy wax paaleen dédd bi wax nañu ne eh, bindkat histoire yi wax nañ ne foofa bind na fa fanweeri kaamin ba ni mu ñëwee eh, sanci fii ñi nga xam ne moo moom la moom la moom la ñuy wax barab bi nga xam ne moom moom mooy Palen Dëdd nga xam ne bind na fa fanweeri kaamin ba mu fa jógee ba sanc këram fi mu sancoon wax nañ ne am na garabu sànqaay gu fa nekkoon foofu la nekk di fa jaamu yàlla moom biraan ba bi mu waree samp kër mu del mu dem njare jël fa ku ñuy wax soxna suñuy wax Saar Njaay day mel ne ñaari ñaari sant la waaye aw tur la Saar Njaay mu am ca Amar Fall Saar Njaay Amar Fall Saar Njaay moomu moo dem kër nijaayam jël fa soxna su tedd suñuy wax soxna Roqayatu Njaay moo tax booy jàng toxfatu sëriñ baa ngi def suul ci doomi yont bi saa salam waaye dafa mel ne da caa cité boo xoolee baatin bi da caa cité ñaari ñi seq Cheikh Ibra muy ndeyam ak maam muy bayroo muy waxe ne wa bi roqayata wa say na bak fi nii atarda wal xijaaba kulla samani nga xam ne kon soxna roqee njaay moomu ca la am ahmadou mi nga xam ne raw bi borom barab bii di sëñ Modou Ablaye moo ko liggéeyaat liggéey bu yéeme mu jaar ci jàmbaaram ji toog di sëriñ Sidi Gise Jóob noo ngi ñaan suñu borom gën koo dëgëral te yàggal fi xalifaam bii fi nekk nga xam ne taxawu na liggéey boobu sonn ci lool te mooy sëriñ Cheikh Bintou Fall kon Ahmadou Rokhaya Fall moomu dafa delluwaat na kër nijaayam jël fa soxna Seynabou Ndiaye kon Seyna soxna Seynabou Ndiaye moomu nag ci la am kon a Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine ak rakkam ju tedd ji maam Saliou Fall mi nga xam ne mooy borom darul xafuur sëriñ sëriñ Cheikh Ibra nettali na loo xam ne ñi ngi ko jëlee ci sëriñ ba Ñang sëriñ Tayba nee na damay bës Cheikh Ibra di ko bës ba mu yàgg Cheikh Ibra fuddu ne ma euh, sëriñ ne ma ne ko Faal mu ne ma Saliou Faal sama rakk ji jiitu na ma ci sëriñ Bàmba ñetti téeméeri at ma fekk ko fa ñett ñetti téeméeri muy juróom benn téeméeri ñu door a tën aadama ne ma ne ko ah Fall loolu yàgg na lool de mu ne ma ah, déedéet loolu yàggut ne ma sëriñ ma ne ko Fall mu ne bi ma jógee rek laa jub laa jubali ci njowaanu saa borom bi may dox jëm ca njowaan ga ba jege njowaan gi laa yér sama bët sànni sama bët gis ne sëriñ Tuubaa nga jaaxaan ca diggu njowaan ga ma dawale sama bët ci ron njowaan gi gis sama rakk sëñ Saliou Fall ne ca ron njowaan ga nee na may bëgg a nee na sëñ Bamba wakk ma nee ma wëlbati jàkkaar mu ne ma kaay feeñal ma manit ma feeñal la kon kaay feeñal ma ma feeñal la comme maam Serigne mu jaay mi ngi noonu mooy moom la ñuy màggal tey mooy boroom bëccëg bii ak guddi gi waaye ki ko doon màggal te mooy sëñ Modou dafa wax ne màggal gi soxna jaaraa ko moom di ko defal maam Seynabou Ndiaye mooy defal njukkal soxna jaara mooy sant soxna jaara kon màggal gi dafa jóge ci soxna Seynabou Ndiaye delluwaat ci soxna jaara loola nag njàngat mu rëy da cee am ndax wolof dana danañu faral di tudd nit ñu ne kooku ndeyam daa liggéey waaye ku sa ndey liggéey rek na nga xam ne liggéeyub ndeyi waaye mooy feeñal liggéeyub ndeyu kaneen kon liggéeyub soxna jaara liggéeyub soxna bu njaay moo ko feeñal maam bu njaay mi ñuy fàttaliku nag sëñ Balla Fagé Ndiaye mooy yaaya mooy mooy baayam maam maam soxna Balla Njaay mooy waajuram kon njare njare la ci ñaari wàllam yépp mi ngi feeñ jamono 1837 am ñu wax 1838 ci njare wàq mu doonoon nag ku sàmm ku lewet ku woyof ku gore ku nangoo liggéey ku dëddu woon àdduna ku sell ku maandu ku bari kersa ku am teggin bu ci nekk des na ci mën a wax lu yaatu ku yaru ku rafet jikko ginnaaw bi juddu bi rafetee ba àgg ci lool xam ngeen ne wax naa léegi ñi mu bokkal ñëpp kon dama lay joxaat ko kàddu gi soxna May nga nga mën a seet wet yoo xam ne ci la ñuy tënk waxtaan wi bu ko defee ñu xam ne rek li alxuraan waxoon ne sun borom jëf ju baax xamu ci góor ak jigéen ku jëf rek la xam te ku jëf mu fay la. loola moo feeñ tey ci jataay bi man la saalihan min sakarin aw unsa wa huwa muminun fala nuhyiyannahu hayatan tayyibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kaanu yaamaluun sun borom jëf ju baax du ci xool jëfa góor a jëf wala jigéen a jëf day xool ku jëf rek mu fay la soxna si nag daa jëf moo tax sun borom tey fayee ko bis bii fayee ko sët yu baax yi nga xam ne ñooy liggéey liggéey bii soxna Maymuna kàddu gaango rek fi laay ñëwee comme danga nga ne man amila saalihaat waaye tamit man amila saalihaat fali nafsi ñoo xam ne maam Jaara Buso dafa liggéey waaye tamit euh, tedd ci jikko waaye tedd ci sell ci Alxuraan liggéeyal boromam ba may ko maam Cheikh Ahmadou ba ñu gisit ne maam bu Ndiaye dafa sell sell liggéeyal borom këram moom it ba mu am maam Cheikh Ibrahima Fall kon su soxna maam soxna euh, bu Ndiaye di euh, gërëm wala di teral maam Jaara te ñu gis ne ñoom ñaar seen ñaari histoire terroir yi xaw a méngoo kii liggéeyal boroom këram waaye kii sàmm sell kii liggéeyal borom këram yi tamit kii sàmm sell kon euh, nga wax ñu ci diggante cohérence bi nga xamee ne liggéeyal boroom kër am na njariñ ci euh, ci wàllum soxna ginnaaw bi nga matalee say jaamu yàlla ba pare. jërëjëf soxna Maymuna euh, liggéey liggéeyal boroom kër yont bi alayhi salaatu wasalaam dafa bi mu defee li ñuy wax insiqaaqul xamar te mooy weer wi bi mu ko xaree kéemtaan googu nga xam ne ci weer wii nuy jëm di saabaan ci la xewoon am na saar wu ñëw ci alxuwaan di ko nettali muy xarug weer wi di iqtarabati saatu wan saqal saaba yi loola daf leen daaneel ba ñu ne ko digal nu nu sujjóot ci yow ndax xar weer wi moom ku ko def yelloo nga ñu sujjóotal la mm-hmm. yonent bi saa sala ana lum leen tontu dane leen bu sujjóot doon yey kon damay digal jigéen ñi ñu koy defal seeni boroom kër ngir àq ji ñu leen ameel sujjóot boobu nag bokkut ak bi nuy def noonu nga xam ne barkeelu la sujjóot boobu it alxuraan andi na ko booy jàngee soortu yuusufa da nga gis ne fukki doomi bàyyi ak benn te mooy li wax ne inni raaytu ahada asara kawkaban wa samsa wal xamara raaytuhum li saajidin sujjóot googu nga xam ne fukki biddiw yi yi sëy naa yuusufa gént ak benn te mooy fukki doomi bàyyi sujjóot gañ ko doon sujjóotal muy sujjóot ak màggal bokkut ak sujjóot gi ñuy def ci bu ñuy julli sujjóot googee nag la yont bi wax ne su fekkoon ne danaa digal mbindéef mu di ko defal boroomam kon danaa digal jigéen ñi ñu koy defal seeni borom kër boo xoolee ci dénk bi Sëriñ Tuubaa dénk soxna pend Buyo da nga dégg mu naan ko faay suma radi sawjun an sawjati radiya anha rabbuha bi ni'mati waaye amma isa lam yarda anha abada fa laysa yarda allahu anha sarmada kon ngërëmul borom kër lu mën a may nit ki lu nekk la loolu itam soxna yu tedd yi nga xam ne tey moom la ñuy fàttaliku muy soxna Seynabou njaay ak soxna Mariama Jaaratullaahi mi nga xam ne moom lay sant ñooña yaakaar naa leeral nañu loolu xam nga ne soxna jaara soo delleewoo ci minan nu baaxil xadiim téereb Cheikh Mouhamadoul Bachir dafay wax ne min dax bi saalihiina qiyaamul layli bokk na ci taxawaayu nit ñu baax ñi taxaw guddi di naafila loolu bi ko soxna jaara di wax te sëriñ bi am at yu néew ci la sëriñ bi tàmbulee taxaw guddeem yépp te booba mëtagut a dem daara xamagut lu muy wax waaye téewut melo wi nga xam ne fekk na ko ci waajuram moom la teel a roy sëriñ Bachiru dane kullama jànn laylu yaquum wa huwa lam yadxulil maktab saa su guddi gi lëndëmee sëriñ bi day jóg di taxaw ay guddeem te mëtagut a dem jàng waaye teewul loolu sek loolu lépp nëbbu na ko secret boobu denc na ko waxaakat aliya xaadinatahu annahu lam yakun yaxtari shay'un mimma yaxtari min asibyan ñu ne ko ci lu mel ne lan mu ne minal bukaa i wa talahi walaw balaxa hadda minal juu'i sëriñ Bachiru moo nettali loolu ci minan nee na yii gaar gone yi gaaruñu sëriñ bi ci waxtu ndawam ndax lim doon ndaw ba doon mu kàllaf mësu na koo gis mu jooy te ab xale daan na jaar ci jooy waaye sëriñ Tuubaa ni nu ko gisee ci àdduna ni mu ci dikke bi mu gënee àdduna ba ni mu nekk kàllaf kenn mës ta nettali ay jooyam kenn mës ta nettali yërëmtalu xiifam mësta wane it genn doyadi ci waxtu ndawam waaye teewut soxna si amoon na secret ci dencal ko yooyu yëpp kon danga gis ne kon soxna yi itam war na noo waggare waggar ci ndaw ñi ñu yor ci taxawu leen bu baax a baax soxna Seyna bu Njaay gis nga njabootam gi xam nga ne Cheikh Ibra gis nga li mu liggéeyal lislaam li mu dugal ci lislaam ci ceddo yi nekkoon ci diggante Kajoor ak Bawal ay junni junni yoo xam ne yàlla mi ngi dogal seenu njub te jaaree ko ci Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine kon kooku waajuram moo war a nekk kan moom kooku mooy maam njaay sëriñ Serigne Bachirou boo demee ci Minan am na foo xam ne day waat naan fa wallaahi laa yatawaddau illaa wa kaaduu yaqtatiluuna alayhi hatta saraahu allazi baqiya bihi balalun min maa il wudu wala yuzaru ahadun ala nuqaamati aw xuzaalati ina aw shawbin illaa wa yauddu salika min asandi ayaami sëriñ Bachiru nee na maa ngi giñ ci yàlla ne sëriñ Tuubaa dey mësta nekk ci benn barab di fa jàpp te daanaka xawunoo xeex ca tooy ca ca ndoxum njàppum sëriñ Tuubaa ma suuf sa nga xam ne njàppum sëriñ Touba moo ko tooyal sëriñ Bachirou nee na suuf dañ koy an dañuy an suuf sa ba doo fa fekk dara lu cay des xataa sharahu lazi baqiya bihi balalun minal maa'i minal maa'il wudu suuf soo xam ne njàppitum sëriñ Touba ko tooyal sëriñ Bachirou nee na dañ ko daan tibb wala yujaru ahadun ala nuqamatin ne bu buy wal aw lor bu ko sànnee bu lor wa dalee ci suuf suuf soosee dañ koy tibb aw xusaalati iinaa yi su fekkee ne daa jëfandiku ci ndab ba noppi ñu raxas ndab la raxasit mooma fu mu tuuru suuf soosa dañ koy tibb aw sawbin walla mbalaan ñeent yi te mooy suuf soo xam ne njàppum sëriñ Tuubaa ko tooyal walla lor woo xam ne dafa jóge ci gémmiñu sëriñ bi dal ci suuf walla ndab loo xam ne sëriñ bi da cee jëfandiku ba noppi ñu raxas ko nga am ca raxasin ma walla fañ sotti raxasin ma nga am ca suuf sa walla nga am mbalaanam walla morso bu bokk ci moom sëriñ Bachirou nee na géñ naa ci yàlla ni ñeenti yi ku ko ma masa am illaa waya xuddu saalika min asaadi ayami da ngay limaale bis yi gën a texe bis yi gën a tedd ci say bis ci yi nga amee lii ci sëriñ bi mu ne ta fa naa lam yusir li muridihi li muridihi ila tabaruki bihi wa tahsimi alihi sëriñ Tuubaa mësta sàkku taalibe yi mësu koo yitteel di woote ci taalibe yi ngir ñuy barkeelu ci moom ak di yëkkati mbiram ak di ko màggal waaye walakin baharahum nooru taaquqi bil xaqaiqil qudsiya fahamu bihi waaye leeru yàlla gi nga xam ne moo nekk ci sëriñ Tuubaa leer googee moo wammat murid yi bañ nangule noonu sëriñ bi haka alayya siqatun annahu kaana awalu man amila bi haza maahu a Cheikh Ibrahima Fall sëriñ Bachiru nee na ku ma doy nettali na ma ne ma xeeti barkeelu yi ñuy defal sëriñ tubaa de ki ko njëkk a def mooy Cheikh Ibrahima Fall babul muridin wa hakaahu lii Cheikhina radiyallahu anhu baadu sëriñ Bachiru nee neena ci minanu baaxil xadiim ginnaaw gi sëriñ tubaa ci boppam nettalil na ma ko boppam ne ma barkeelu yi ñuy def di barkeelu ci man moo xam samam njàpp moo xam samay lor moo xam samay yére moo xam desitu ndab lu ma jëfandikoo maanaam barkeelu ci man daal ki ko njëkk a tàmbali mooy Cheikh ibraahima Fall Babul Mouridine waaw nga xam mooy Cheikh Ibrahima Fall Babul sëriñ bi wax ne am na bis boo xam ne damay. dama ànd ak moom ab tukki kaana maawu fi safar nekkoon nañu ànd ci tukki xataa nasalu manzilan yuridu salaat bañ wàcc ci kër goo xam ne barab boo xam ne sëriñ bi nee na maa ngi bëgg a julli fii bar fii baax di arbaabi kajoor lenn ci dëkki mbàkki kajoor yi wa sharaa yatawaddau sëriñ bi nee na ma tàmbuli di jàpp fa jaalal muridu yataxarradu bi yeddi yi lil ma ishaqit min al aadaai yasrabahu waya dalluku bihi sëriñ bi nee na bi ma tàmbulee jàpp Cheikh Ibrahima mi ngi dékkandiku ndox mi rote ci sama yaram lenn li mi ngi koy naan lenn li mi ngi koy bomb ci aw yaramam sëriñ bi nag wax ne wa min xajaayib li ma gën a yéem ci Cheikh Ibra kon Cheikh Ibra sëñ Tuubaa la njëkk a yéem anni maa raaytu xattu man yafalu bi bii haasa mësumaa gis kenn ci nit ñi jiitu wala téere histoire yi ku ñuy defal loolu cheikh wal muridu aydan murid bi di cheikh Ibrahima Fall mës ta gis loolu kon loolu cheikh Ibrahima moo ko njëkkee kon gannaaw sëñ Tuubaa mësu koo gis te cheikh Ibrahima mësu koo gis kon barkeelu yooyu cheikh Ibrahima moo ko njëkk a tàmbali moo ko njëkk a tàmbalee def ci sëriñ Tuubaa kon ku jëriñu ci sëriñ bi wala nga barkeelu ci cheikh Ibrahima la kon waxtu émission euh, euh, euh, cérémonie bi dafa jege te waxtu wi gàtt noo ngi siyaare ñëpp di jaajëfal ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa dama waxoon ne ci ndogu yi dama waxoon ne euh, jërëjëfe Serigne Touba jaroo la kee maam Cheikh Rahma Fall ndax waa kër maam Cheikh Rahma Fall euh, togg ci ay mbana yàq ci ay boole fas yéene yóbbul euh, Serigne Serigne Cheikh jëmb waaye ren ji fas yéene koo yóbbul Serigne Amdi Modou Menda kon nag bu ñu waxee jërëjëfe Serigne Touba wax jaaraama maam Cheikh waaye bu ñu waxee jërëjëfe maam Jaara Buso dañ naan jaaraama maam Seynabou Ndiaye kon nag maam Seynabou Ndiaye muy njukkal soxna Jaara kon bis bi